waaw euh, Mozambique euh, équipe boo xam ne ne tey euh, mën naa wax ni ñoom ñooy deuxième ci ci classement bi ñun am nañu six points ñoom quatre points nañu am mën naa wax ni que suñu suñu suñu adversaire direct pour qualification yi pour première ak deuxième place bi tey ñoom la donc muy troisième ak quatrième journée boo xam ne Sénégal fas yéene ko fas yéene na ko jouer vendredi fii ci stade Abdoulaye Wade waaw di di sàkku ñaan ci sénégal yi yëpp di wax Sénégalais yëpp teew. Euh, jàppale équipe nationale bi pour que justement euh, Sénégal mën a qualifier ci prochaine Coupe d'Afrique bu bu bu Côte d'Ivoire bi. Euh, ndaw ñi. waaw ndaw ñi moom mën naa wax ni egsi nañu ci jàmm ak salaam tey fekk nañ fi tamit mag yi ñu ubbil leen kër gi. Euh, comme ni ma leen ko waxee rek équipe nationale moom famille la tey euh, xale yu fi nekk tey suñu warugar mooy que ñu intégrer leen rapidement te intégration boobu sax ñu ngi ci donc euh, muy Fadiga muy Ousmane Sakho muy Sidibé ay xale yoo xam ne yàgg nañ leen yàgg nañ leen gis yàgg nañ leen suivre mais tey am nañu opportunité dugg ci équipe bi jege équipe bi nekk ak yeneen yeneen yi donc di xaar ci ñoom tamit ñu pare parce que bu ñu leen soxlaa tamit ñu mën a jàppale équipe bi. Sadio Mané ci ban forme nga ko mais alhamdulilah rabil alamin bi ñu bi mu ñëwee jàmm vraiment ci forme bu intéressant laa ko laa fekk je pense que tey motivation mi ngi fii te Sadio fi fi fi famille am la donc euh, je pense que tey il est très heureux d'être euh, avec nous ñun tamit on est très heureux tey mu ñëw fekk ñu fii te xam naa ni que motivation am tey pour euh, pour match bi ñëw nii lu motivation bu mag la incha allah dinañ gis Sadio bu mag. ñu bees ñi ñëw nii ñoo gisee seen intégration. mais comme ni ma ko waxee rek seen euh, équipe nationale bi moom famille la waaw képp mën na ñëpp xëj nañ fii donc euh, seen intégration mën naa wax ni que jàmm rek ak sa ak salaam xale yoo xam ne rêvé nañu jouer équipe nationale bokk ci groupe bu mel ni groupe bi tey ñu ngi ci gàcce ngaalaama ci ñoom mais di xam ne que sélectionné baax na waaye mais jouer bi tamit moo am solo ko dañu war a pare tamit bu ñu leen euh, soxlaa ci équipe bi ñu mën a def seen kéem kattan justement pour jàppale équipe